bismillahi rahmaani rahim yonentu sallallahu alayhi wa sallam xadis yaa ngi ci saxiixul buxaari xadisu sayidna abu hurayra moo ñuy jàngal naka la ñu war a wóore nee na man lam yada qawla zuuri wal amala bihi wal jahl fa laysa lillahi xaajatun an yadaa taamahu wa sharabahu ne kii bàyyiwul waxi mbóosóor abandonewul jëfi caaxaan mënta tàqalikoo ak ignorance maanaam comportement bi wara a dox diggante moo boromam respect bi war a dox diggante mook moromam xaq yi nga xam ne moo nekk diggante boppam xamu ko ne kilee su wooree xiif ak mar rek la def te yàlla amul soxla ci nit bañ a lekk mbaa bañ a naan li muy jàngale foofu mooy koor dafa am lu mu war a def ci yow imaamul Ghazali rahmatullah mu ne ñett woorkat ñoo am ki nga xam ne bu xëyee dana bañ lekk dana bañ naan waaye lu ko neex wax waaye lu ko neex def waaye fu ko neex dem nee na mooy le jeune des communs mu ne am na ñu nga xam ne nag danañ fexe ba seen cër bu dee tànk la du dem fu mu dem bu dee loxo du laal lu mu laal bu dee làmmiñ du tudd lu mu war bu dee bët du xool lu mu war a xool na loolu mooy kooru élite ne waaye kooru élitu élite yi xawaasul xawaas mooy ki nga xam ne xolam yàbbi na lépp lu dul yàlla tabaraka wa foofu nag la mbokk yi koor war a jëmee képp kenn ci ñun yàlla ñu yàlla boole defal loolu yaa